alhamdulillahi rabbil alamin mudabbiril umuuri wal xalaa'iqi ajmain wa huwa alqaa'ilu fi muxkami tanzilihi allahu aclamu xaytu yajcalu risaalaatihi wassalaatu wassalaamu ala sayyidina muhammadin safwati bani adnan wa ala aalihi ahli l-ihsaan wa radiyallahu an baqiyati salaf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 suñ borom waxante moom ne ko laa taxas inna maana tukki boobu nag dara yëkkatiw ko woon lu mooy xeetali xeetu rasulullahi sallallahu alayhi bi nga xam ne waxoon na ne bu dem tukki tukkeem bu tedd boo bii ñëpp dem sawara wala ayaasu billahi taala ndax nee na bu demutoon ñëpp danañ def li ñuy li ñuy tuddee tanasur te mu neen law tanassartu la daxaltu naara wal iyaasu billahi taala mañ sama jëm boobu sax law tanassartu la daxaltu naara tukki boobu yi nag mooy bis bii nga xam ne nattu yu diis lañ ko jëdaa teg ba yàlla def nag dem ba nattu yi jeex suñ boroom xamal ko ne ko nattu yi jeex na ak pay jërës pay gi ni muy demee mooy saa su dellusiwaatee na sa na say nattu tollu woon rek ni la pay gi tollu kon bis la boo xam ne bu rëy la ci ñun Serigne Touba nag ci yaatalam ak ci bëggam du baax ak yéen jullitam jullit yëpp jàmm ndax àgg ci biir mbindam di wax ne li may ñaanal jullit yi nga xam ne dañoo aju ci man moom laay ñaanal jullit yi xam ne ajuwuñ ci man mboolem fu muy ñaane yitam loolu ngay dégg mu di fa wax yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamia alwara yaa hadin rada kon jullit yëpp la ko daa boole tukki bi itam